del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi bu lépp jàllee ñii ci ñu ñu um ci bokk fay naana fa ay dara Guinée ak Diana Bullis Cameroun nen bii nga xam ne nii moom la fa waykat bi fase woon muy wër di jooy nan je fais partie du TikTok je viens seulement pour pour pour mes mais mais c'est pas c'est pas l'appel c'est pas du pain parce que ma fa sauve romancé Cameroun nees nga looy wutit Qatar jigéen ñi muy fa ay dara muy fay naara muy Guinée yéen ñu um topp hôtel yi ak bëgg bëgg kese bëgg jëkkëru joueur rek jëkkëru joueur lan bëgg ak footballeur yi ñam leen loolu ngeen di wut Qatar wut amu leen fa benn njariñ Qatar yéen amu leen fa benn njariñ ay meer ngeen màggat ngeen wuti leen jëkkër bàyyi joueur yi ngeen di topp di lambar lambari ci hôtel yi di dugg hôtel bu joueur yi nekk ngeen nekk fa fu mu teg seen tànk ngeen teg fa salu bamba ngi nii su su avec bomb su bu gànna sarab nday li yéen a ñu del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information